tumma salaatu wassalaam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs dans ce monde chaque événement chaque circonstance contient des leçons précises et Tamkharit n'échappe pas à la règle Car, dit Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6, surat Yunus, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans tout ce qu'Allah a créé, dans les cieux et sur terre, il y a des signes pour ceux qui vénèrent Dieu subhanahu wa ta'ala. mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa ta'ala mi nu wërsëgal nu daje ci bis bu tedd bi ci ndimbali sunu mbokk seeni Diop fàttali sunu bopp fàttali leen ni ci àdduna bi nuy dund bépp xew-xew bépp jamono mu ngi ëmb ay njàngat yu dul jeex tamxarit nag bokk ci yooya ndax borom bi dafa ni inna fi ixtilaafi li wan nahaar wa ma xalaqa allahu fi lsamawati wal ard la ayatin li qawmi yattaqun mu ne wuutu gi ba cëg di wuutante ak lépp loo xam ne yàlla bind na ko dëxëñ ko ci asamaan ak suuf ay ayaat ay firnde ay tegtal ñu ngi ci ñeel képp koo xam ni kii gëm nga yàlla premier mois de l'année lunaire Tamkharit contient donc le aya sur l'importance du temps. La meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit Allah subhanahu wa ta'ala a réparti le temps un années de douze mois dont quatre sont sacrés. Les trois sont se succèdent, c'est Diggi Tabaski, Tabaski et Tamkharit et ndeyu koor situé entre maamu koor et baraxlu mbokk yi at mi door weer wi ubbi atu jullit di tamxarit ëmb aaye yu dul jeex biñ ciy njëkk dal tey mooy solo si nga xam ni moom la temps muy jamono bi am ci sunu dund yonent bi alayhi salaam ne yàlla subhaanahu wa taala dafa séddale temps bi at mi mu def ko fukki weer ak ñaar weer yooyu nag mu def ci ñeent yoo xam ni yi dañu leen ormal salaasatun mutawaliyaat ñetti dañu toftalante mooy zu alqaada muy diggi tabaski ak sulhijja muy tabaski ak mu xarram mi ñu nekk muy tamxarit yooyu ñoo toftaloo beneen bi mooy rajabu mudar rajabu dar mooy ndeyu koor moom nag ma ngi nekk diggante jumaada saani muy maamu koor ak chaban di baraxlu sachami auditeur qu'un mois sacré est une période où il est interdit de se quereller, de se battre, de faire des injustices. Un mal accompli dans un mois sacré est plus grave qu'accompli en un mois ordinaire. Et sa punition est donc naturellement plus sévère. mbokk yi xamal bu ñu nee weer wu ñu wormaal mooy jamono la boo xam ni bii dafa xaraam ci xuloo ci xeex ci def ay ñaawteef jamono la boo xam ni bii boo ci defee ñaawteef ñaawteef nga defoon ko ci weneen weer wu dul moom bii mooy gën a garaaw bon liñ la ci mbugal mooy gën a metti junni yoon ainsi ami auditeur Muharram ou Tamkharit rappelle le pacifisme et la non-violence de l'islam Pacifisme et non-violence qui sont d'ailleurs une caractéristique distinctive du musulman, comme dit le verset 63 sourate Furqan, les musulmans vivent humblement sur terre et répondent aux ignorants qui veulent des problèmes en leur disant nous nous ne cherchons que la paix paix seulement mbokk yi ba noonu muharram muy tam di fàttali solo si nga xam ni moom la lislaam jox jàmm jàmm yemul ci def ko ci weer yi rek de waaye dafa bokk ci màndarga jullit borom bi wax ca suratul furqaan wa ibaadu rahman lazina yamchuuna ala al ardi hawnan mu ne sama jaam ñi jaamu yàlla yi jullit ñi dañuy dund ci kaw suuf ci woyaf wa iza xaatabuhumul jaa'iluuna qaalu salaama boo xamee ni bii ab kàccoor ñëw na di leen tàppaas di leen wut dañu naan ka man de sama kuddu jàmm rekk la ràcc c'est aussi que tamxarit al muharram nous rappelle que notre temps est compté les savants ont dit que ce monde est court Ce qui en reste est court. Ce que tu as de ce court est peu, et il ne te reste de ce peu qu'un tout petit peu. Qu'en est-il, ami auditeur? Si de ce peu une année, douze mois, nous est retiré. bon muharram dinu fàttali ni sunu temps wu dund dañu ko wàññi dafa am gàpp boroom xam-xam yi ci seen waxin yu jotale ya ñu ne addunya qalil àdduna dafa néew dafa gàtt li des ci lu gàtt loolu tuuti la yow nag li nga am ci lu gàtt loolu moo gën a ti gàtt ci te dese wala ci lu gàtt loolu nga dese lu dul lu néew addunya qalil wa ma baqiya minha qalil walladi laka mais sourate Baqara nous avait prévenu pour montrer les limites de cette vie terrestre vous aurez sur terre un séjour et une jouissance temporaire lii ma wax lépp alquran tënk na ko ci waxinam bu matale ba wan ñu ni sunu dund dafa gàtt mu ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mataaun ila xiin yéen dañ leen may ci àdduna bi saxuwaay diir bu gàtt ak nag lu ngeen fa dunde as lëf li ngeen fi jaar ci àdduna sachant que notre temps est compté et ignorant quand il finit, chacun de nos souffles est précieux et doit être investi dans la cause d'Allah, le Créateur, qui nous prescrit le mode d'emploi de toutes choses dans le Coran et la sunna de la meilleure des créatures mbokk yu tedd yi ànd ak nun ci bis bu tedd bi comme que sunu waxtu yi nuy dund dafa gàtt am fu mu yem te xamuñu kañ la naka la di jeexe bon sunu noyyi bu nekk mënuñu sax xam solo si mu am noyyi bu nekk dañu ko war a jeexal ci yoonu yàlla mi nga xam ni moo bind wax ni li ma bind nii lañu ko war a doxale loolu mode d'emploi boobu mu wax ñu ko ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ali Celui qui respecte le mode d'emploi sera heureux dans les deux mondes. Et à l'heure de sa mort, il préférera rejoindre Ar-Rafiqul plutôt que de rester une seule seconde dans ce monde d'épreuve. Cela, à l'exemple de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi képp koo ni la yàlla wax ni jëfe def nga ka da ngay dund rekk ci tedd àdduna ak te bu sa dem jotee dee dikk yow danga naan ko siiwe jëm ci rafiqul ala au lieu ngay des ci àdduna bi moo xam seconde rekk gis nga noonu la yonent bi alayhi salaam tànne woon ne allahumma rafiqul ala baka malakul mawti bu la neexee des fi Celui qui ne respecte pas le mode d'emploi regrettera et suppliera un petit sursis à l'heure de la mort. On lui dira, ne t'avons-nous pas donné assez de temps pour prendre le bon chemin si tu le voulais mbokk yi mu dee nag ki nga xam ne moom sàggane na mode d'emploi bi ni ko yàlla wax ni que nii la ñu war a dunde nii nga war a jëfandikoo defu ko kooku day réccu bu dee jotee muy sarxu nan bàyyi leen ma fi fépp ma def lu baax ñu ne ko waaw yow xam nga ni loolu mënul nag awalam nu ammirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakkar xanaa yow dama la joxul ci dund diiru dund lu doy sëkk pour bu fekkoon bëgg nga soobu ci yoonu njub nga sóobu ci lu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal nanu ko defal ya Muharram ou Tamkharit commémore aussi l'hégire. Parce que lorsqu'il fallut choisir une référence pour le début du calendrier musulman, les compagnons optèrent pour la hijra, car, disent-ils, elle marque la rupture définitive entre la vérité et l'erreur, la foi et la mécréance, la droiture et l'égarement. Mbokk yi tamxarit euh, di feet euh, feetu gàddaay gi ndax bi nga xamee ni toll nañu ci xool calendrier jullit ban weer la war a tàmbali saxaaba yi dañu ni nañu ko dale ci hijra hijra boobu nag ñu tàmbalee ko ci muharram lu tax ndax hijra muy gàddaay gi moom lañu jàpp ni moom mooy xew-xew bi taqatle diggante dëgg ak réer diggante gëm ak weddi borom bi diggante njub ak njubadi le verset 72 sourate Anfal le di les croyants qui ont émigré au service d'Allah avec leurs biens et leurs personnes et ceux qui ont accueilli le prophète et défendu sont des alliés. Ceux qui croient sans émigrer ne seront pas compris dans cette alliance tant qu'ils n'émigreront pas mbokk yi suratul Anfal dinu wan solo si nga xam ni moom la gàddaay gi am mu ne ñi nga xam ne dañu gàddaay jël seen alal ak seeni jëm def ko ci yoonu yàlla ak ña nga xam ni ca madinatul war ñoo fat yonent bi alayhi salaam aar ke ulaayika baaduhum awliyaw baadin ñooñu rekk ñoom ñooy ay parandoo ñoom ñooy ñi bokk seeni mbir waaye nag ñi nga xam ni ñoom amanu walam yuhaajiru maa lakum min walaayatihim min shay xata yuhaajiru ñi nga xam ni ñoom gëm nañu naam waaye nag gàddaayuñu ñooñu ñoom amuleen benn lu takke ak ñoom li fekk gàddaay suratul anfal lay juróom ñaar fukk ak ñaar donc amis auditeurs au début de l'islam les jours un critère de la foi jusqu'au jour de Fathu Makka quand le prophète alayhi salam déclara je le cite plus de hijra après Fathu c'est-à-dire d'une contrée non musulmane vers un pays musulman bon gis nga nii la gàddaay gi ci njalbeenu lislaam nekke woon nattukaayu ngëm gu dëggu noonu lañu ñu koy natte ba bisu fathu makka ba yonent bi alayhi salaam taxawee ni nag laa hijrata baada al fathi gannaaw bisu tey bii ñu ubbi makka gàddaay jóge ci dëkk jëm ci dëkk moom jeex na amatul mais la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui maintint les gires sous une autre forme en disant que le migrant est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit waaye nag bokk ànd ak jóge ci dëkk jëm ci dëkk di gàddaay jeex na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñu am na gàddaay goo xam ne du jeex ba àdduna di tukki ñu ne ko mooy gan mu ne al muhaajir man hajara maa naha allahu anhu gàddaay mooy nga gàddaay li yàlla tere man hajara sayyi'aat gàddaay mooy nga gàddaay ay ñaawteef c'est ainsi que dans son style unique la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous présente tous les aspects de l'islam comme un mode de vie. Le croyant, dit-il, est celui à qui les gens font confiance. Le musulman est celui qui épargne les musulmans du mal de sa langue et de ses actes. L'émigrant est celui qui émigre le mal. déggal ca waxinam wa nga xam ni dara mënu koy samandaay moom lépp lu mu lay jàngal ci lislaam dafa lay won ni dundin la dundin la tey kuñ ci laajoon luy ngëm da ngay lim ponki ngëm kuñ ci laajoon luy islaam dangay ngay lim ponki lislaam moom mu ni al muumin gëm yàlla mooy man aminahu naas koo xam ni kii nit ñi wóolu nañu la gis nga mu ne jullit mooy koo xam ne kii jullit ñi mucc nañu ci sa lori làmmiñ ak say loxo al muslim man salima al min lisaani wa yadi mu ne gàddaay nag ki gàddaay mooy ki gàddaay ñaawteef wal muhajir man hajara suu Citez les jours que nous en cette période que chacun fasse deux colonnes sur une feuille et inscrit sur la première colonne ses défauts et ses mauvaises actions de l'année écoulée. Sur la deuxième colonne, on notera comment on va faire pour corriger nos défauts et abandonner le mal. mbokk yi bu fekkee lii la ñu gàddaay gi bon nga ni tam xarit di fàttali bon jot na ci njàlbeenu at mi ñu dal di wut na kayit rëdd ci boor bi lépp li nga xam ni am na def nañu ko ci ñaawteef am nañu ko ci jikko bu safaanu ci at mi weesu beneen pegg gi ñu bind ci naka la ñuy def ba bépp ñaawteef bépp jikko bu bon nu mën koy bàyyi ci at mi nu su sumb si nous sommes déterminés à émigrer le mal à l'abandonner Allah subhanahu wa ta'ala tiendra ses deux promesses qu'il nous a faite au verset 100 sourate An-Nisa la femme. Il nous dit premièrement, celui qui émigre, donc qui émigre le mal, dans la voie d'Allah aura sur terre abondance et une vie sereine. mbokk yi su fekkee dogu nanu rek ci gàddaay lu bon tàqalikoo ak sunuy jikko yu ñaaw yàlla subhaanahu wa dana def moom it ñaar yemunu dikk ci laaya téeméer sortu nisa mu ne képp ku gàddaay ci yoonu yàlla nga wax ko ci gàddaay gu mujj gi képp ku gàddaay ñaawteef jëm ci topp ndigalu yàlla yajid fil ardi muraaxaman kathiran wa saa mu ne dangay am ci àdduna kaw suuf si danaa la fi defal mais gàncax danaa la fi defal xéewal yu ni gàññ ak dund gu yaatu gu neex gu tedd gu tey deuxième promesse celui qui abandonne sa demeure et émigre c'est-à-dire abandonne le mal pour aller vers l'obéissance à Allah et son messager mais meurt en cours de route aura sa récompense auprès d'Allah le pardonneur le miséricordieux mbokk yi ñaareel bi nag mu ni képp koo xam ni kii génn nga sa kër di gàddaay di daw lu bon jëm ci topp ndigali yàlla yonentaam waaye nag dee dab la ca yoon wa mu ne faqad waqaa ajruhu ala allah kooku payooram mat na sëkk ci yàlla bu demee ci yàlla day fekk payooram mat na wa kaana allahu gafuran rahiman te dana fekk yàlla di ku koy baal ay bàkkaaram di ko sóob ci biir yërmandeem yu matali nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy gàddaay ñaawteef yi wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal min yadi taazim zaaraka taslim min yadi taazim yaxmilu takrim صلاة الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله بارك الملهوف يا عظيم الجاه Amis auditeurs, vivre jusqu'à atteindre cette année nouvelle est une opportunité qui exige de nous la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité pour nous permettre d'effacer nos péchés de l'année écoulée. Puisque la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, j'espère qu'Allah efface les péchés de l'année passée par le jeûne du jour de Ashura, du dixième jour de l'année nouvelle de Muharram. mbokk yi dund ba fekkee at mu bees tàbbi ci kooku xéewal la gunu yàlla defal xéewal goo xam ni nag dafa laaj ñu sant yàlla xam li munu defal ndax euh, euh, may nañu ñu mën a ci fekk at mu bees mi far sunuy bàkkaar ci at mi wees ndax yonent bi sallallahu wa ali moo ne wa sawmu yawmu ashura ahtasib ala allah an yukaffira sanata allati qablahu mu woor bisu fukkeelu fan ci weeru tamxarit man yaakaar naa ci yàlla mu fare ca bàkkaaru at mi wees ci ki ka woor te woram nangu yàlla nañ ci yàlla boole si nous réussissons à jeûner ce donc à effacer nos fautes passées il nous faudra faire l'effort de ne plus revenir au péché et alors alors seulement verset 31 sourate Nisa nous dit si vous évitez les interdits nous effacerons vos fautes et nous vous installerons dans une suite luxueuse mbokk yi su fekkee yàlla yenkeyal nanu nu man kay woor nga ni su fekkee yàlla yenkeyal nañu ci bis boobu nu mën a far sunuy bakkaar yi paase bon lan moo nu dese lu dul farlu te góorgóorlu ba bañ bu sóobuwaat ci ay ñaawte fekki bakkaar bu ko defee rekk rek suratu nisaa wax ñu ni in tajtanibu kabaayira ma tunawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum wa nudxilukum mudxalan ma mu ne ñu gis nga bu ngeen góorgóorloo ba bañ def bakkaar yi nga xam ni tere naa ko waaye ma faral leen seeni njuumte duma ci yem ma dugal leen ci bërëb boo xam ni bërëbu teraanga la te mooy teraangay àdduna yi ak teraangay àllaaxira yi en parlant des gires notre monde doit prendre exemple sur la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui car aujourd'hui des pays dits développés ont décidé de s'accaparer de l'argent qu'un pays ennemi leur avait confié pour armer son ennemi contre lui du jamais vu mbokk comme que ñu ngi wax ci gàddaay sunu àdduna bi war na jàngate ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga dégg réew yu mag yi ñu ni am na réew moo xam ne mu ngi xeex ak beneen réew boo xam ne seen xarita te réew ma nga xam ne seen noon la dénkoon na alal ci seeni bànk léegi nag nañu teg loxo ci alal jooju jëndale ko ngànnaay kii muy xeex pour kooku man koy duma daan lii xam nga kenn mësu ko dégg kenn mësu ko gis et c'est contraire à la loyauté et à l'honnêteté qu'enseigne l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah vous ordonne de remettre les dépôts qui vous ont été confiés à leur propriétaire, quoi que cela puisse vous coûter. Mbokk yi xam nga décision boobu ci jël alalu jàmbur jënde ka ngàndaay xeexe ka ka loolu ngor newu ci jom newu ci ngor ak jom nag la lislaam moom woote mu ne inna allah yaamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha yàlla nee na sant na leen na ngeen jël lépp loo xam ne ndénkaane la lu la nit dénk delloo ko ka ca la ko dénki ak nag lu mën a dox seen diggante suratu nisa laaye juróom fukk ak juróom ñett quand Quraysh sut que le prophète alayhi salam allait émigrer, ils armèrent un jeune choisi de chaque tribu et leur ordonnèrent de le frapper en même temps de leurs épées pendant qu'il est endormi. Ainsi, ne pouvant pas combattre toutes les tribus, les Banu Abd Manaf devront accepter le prix de son sang et le compte rejoint la mer, dit Abu Jahlin. mbokk yi bi nga xamee ni bii Quraysh yëg na ni a ah, yonent bi alayhi salaam mu ngay mu ngay préparer pour gàddaay jëm Medinatul mu Munawwara ñu ni e loolu du fi ame daldi di dem tànn ay ndaw ci giir gu ci ne daldi leen di gànnaayal ni leen nag li nu leen sant mooy bàyyi leen ko ba mu nelaw ba yàndoor ngeen ñëw yéen ñëpp dóorandoo ko seen xeej bu ko defee giir yëpp a ko reyandoo Banu Abdu Manaf du mën a xeex ñëpp bon dana nangu diya lépp doxe fa tàbbi géej loolu nag xalaatu Abu Jahlin la bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu la meilleure des créatures étant informé par Allah de ce projet installa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dans son lit et lui dit il ne t'arrivera rien de mal mais demain tu remettras l'argent que Khouraïch m'avait confié à leur propriétaire ceci appartient à un tel ceci à un tel ceci à un tel et le digne de confiance comme ses ennemis le surnommaient, ne pensa pas s'accaparer de l'argent de ses ennemis pour s'acheter des armes et les retourner contre eux mbokk yi yàlla wax yonent bi alayhi salaam li ñu koy fexeel iz yamkuru bika ca suratul anfal daal di woo sayiduna ali ibn abi talibin karramallahu wajha ni gaañ yi dañu ma nar a jam si xeej yi waaye tëddal sama place sàngoo sama sér bii xamal ni dara dara du la dal léegi nag yii waa Xuraysi ñii di ma waaj rey si ñoom ñoo ma ko dénkoon lii yëfu diw la boo yeewoo jox ka ka lii yëfu diw la jox ka ka lii yëfu diwla la jox ka noonu la al amin ñoom ñoo ko tudde woon al amin ki ñu wóolu kii doxale moom xelam masul xalaat ni négal ma jël alalu samay noon jënd ci ay ngànnaay pour xeexe leen ka walla sax naa jël seen alal rek bu ko defee duñu ma mën a xeexe alal ji loolu masul masul nekk xalaatu yonent bi sallallahu alayhi wa ami auditeur le digne de confiance al amin à la nuit profonde sortit tranquillement versa du sable sur la tête des mercenaires endormis et partit vers Médine en récitant nous mettrons une barrière devant eux une barrière derrière eux et nous les couvrirons d'un voile de sorte qu'ils ne verront rien rien du tout xaar ba guddi gi sedd mu génn ndànk dukkat tibb suuf sotti ko ci boppu mercenaires yi nekk ci buntu néegam di ko xaar pour rey ko dal jël yoonu medin natul munawwara ba nga naan wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min xalfihim sadda fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun suratu yaasin mu ne damay muur seen kanam muur seen gannaaw muur seen a kaw fahum laa yubsiruun duñu gis dara ñu ñaan yàlla subhaanahu wa nu mën a gis taaru yonent bi sallallahu alayhi wa ali mën a gis taaru lislaam bokk ci ñiy dégg di mën a topp yow mën na borom bi yàlla na nu ko defal ذلك المنهوب يا عظيم الجاه أزارك التسليم من يد التعظيم زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله L'entrée dans une année nouvelle est une faveur, je l'ai dit, qui nécessite d'exprimer notre gratitude envers Allah subhanahu wa Mais une gratitude concrète, pratique, pragmatique. Comme dit verset 13, sourate Saba, famille de Daoud. Exprimez concrètement votre gratitude, car très peu de mes adorateurs me sont reconnaissants. dund ba fekke at mu bees xéewal la goo xam ni gii wax naa la ka dafa laa cant borom bi subhaanahu waaye cant goo xam ni yamul ci alhamdulillah ci làmmiñ waaye cant ci ay jëf cant ci ay cër naka suratu saba waxe i'malu ala daawuda shukra eey yéen njabootu daawuda jëfe leen cant jëf leen ay jëf yi wane ni yéen a ngi may sant ndax xalilun min ibadiya shakur li gën a néew ci sama jaam yi ñoo may sant ci seeni jëf suratu Saba de ce point de vue être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala c'est utiliser ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ainsi que nos facultés d'entendre de voir et de comprendre comme dit le verset 23 sourate Mulk comme Allah nous l'ordonne mbokk yi ci noonu sant yàlla subhaanahu wa ma ngi tàmbalee ci yaram wii nga xam ni yàlla moo ko bind dénk nu ko jox nu kàttanu sama wal absaara wal afida dégg gis ak am xel comme ni ko suratul mulk waxe loola lépp nu jëfandikoo ko ni ko yàlla subhaanahu wa taala santaane pareil pour notre bouche, notre langue, nos lèvres, comme dit le verset 9, sourate Al-Balad. Pareil pour nos jambes qui nous permettent de marcher, les mains avec lesquelles nous faisons tellement de choses, les oreilles avec lesquelles nous entendons. Verset 195, sourate Araf. Pareil pour le cœur, la raison, la faculté de ressentir, de raisonner. Verset 46, sourate Al-Hajj. Mbokk itam la war a doon ci cant yàlla ci jëfandikoo bët yi nu yàlla defal alam najal lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayn bët yi làmmiñ yi gémmiñ gi suratul balad alahum arjulun yamshuuna biha tànk yi nga xam ne moom moo tax nu mën a dox loxo yi nga xam ni li nu ciy def xamunu nu mu toll ak bët yi nga xam ne moom la nuy gisee waaye nopp yi nga xam ni moom la ñuy dégg la araf nañu ko jëfandikoo ni nu yàlla sante waay waay fa takuna lahum qulubun yaqiluuna biha xol bi nu yàlla defal xel mi mu nu defal nu mën a xalaat di xeltu ni ko suratul xajj lay ñeen fukk ak juróom benn waxe xel moomu jëfandikoo ko ni la ko yàlla sante moom mi ko moom bind ko dénk la ko quoi qu'il en ami auditeur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Sachez que votre œil, votre vue, votre cœur, votre raison et tous vos membres, vous en rendrez compte de l'utilisation que vous en faites. Suratul Isra. Mbokk yi lu nu mënti dunde nu nu mën a jëfandikoo sunu yaram wi yàlla moom dànkaafu nanu dànkaafu nanu mu ne ngal la waay bul dugg ci lu sa yoon nekkul sa jëmm ji bu ko dugal ci loo loo xamul wala taqfu maa laysa laka bi ilm ndax kat inna sam'a wal basara wal fuaada kullu ulaayika kaana anhu mas'uula ndax na nga yëg ni sa noppi sa bët bi sa xel mi sa cër yépp da nga koy régler sache aussi amis auditeurs que nos oreilles nos yeux notre peau témoigneront contre nous le jour du jugement si nous faisons nous les obligeons à faire le mal comme dit verset 19 20 surat Fussilat bokk nanu xam ni bisa ngi ñëw su fekkee jëfandikoo nanu sunu yaram wi ci def ay ñaawteef at mi nu yàlla jox ñu sóobu ci ci ay ñaawteef ay mbonteef bisa ngi ñëw dañuy pang ñi def loolu ba ñuy yegsi ci buntu safara taxaw ci kanamu yàlla di dàggase ak seen yaram shahida alayhim samhuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanu yaamaluun seen nopp seeni bët seeni der seeni tànk seeni loxo di seede ci ñaawtee fi ñu leen def looloon tu leur diras pourquoi vous témoignez contre moi ils te répondront Allah nous a fait parler lui qui fait parler toutes choses lui qui t'a créé et vers qui on te retournera vous ne vous cachez pas de vos oreilles de vos yeux, de votre peau, di Allah subhanahu wa ta'ala, car vous ne pensiez pas qu'ils témoigneront de vos méfaits. Verset 21. Qu'Allah nous préserve d'être en désaccord avec notre corps mbokk yi nit ki wëlbatiku dàggase ak deram ak loxoom sama cër sama yaram bi li ma shahidtum alayna lu tax ngay seede ci man te yow buñ ma soobee safara dañ lay lakk qaalu yaram bi ni ko antaqana allahu allazi antaqa kulla shay wa huwa xalaqakum awwala marra wa ilayhi turjaun yàlla mi waxloo lépp moonu waxloo moom moo la bindoon te ci moom lañ la pang delloo yàlla ni ko wa ma kuntum tastatiruun an yashhada alaykum sam'ukum wala absaarukum wala juluudukum ah waaw kay gis ngeen guta gi ngeen dugg li leen ci dugal mooy mosu leen ni nigal ma nëbbatu sama nopp yi nëbbatu sama bët nëbbatu sama der ndax foogu leen woon ni ñoom kat ñu ngi leen di xool te dañuy seede ëllëg ci lépp lu ngeen def nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu nu bokk ci ñiy jëfandikoo xéewal yi mu jox ci na mu ko sant ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu ci xalil min ibadiya shakur lu néew loolu nga xam ni ñoo koy sant ci seeni cër ci seeni jëf ci seeni kàddu nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla nanu ko defal mustafa arrahman anta fil akwaan mustafa arrahman jita bil quran hadiyan lillah ya rasul espérer que cette année nouvelle nous apporte santé et prospérité physique, spirituelle et matérielle. Que cette année nouvelle soit une opportunité pour nous de renforcer notre foi en toi et en ton messager, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. yi ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal nu at mu bees mi nekk atum wér atum naataange ci sunuy jëm ci sunuy ruux ci sunuy koom ñaan yàlla subhaanahu wa at mi nekk ci ñun xéewal goo xam ni dana tax sunu pas-pas gën dëgër gën a wér ci borom bi subhaanahu wa ak ndawam lii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ali qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte son aide à la umma persécutée en ces moments tristes que nous traversons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à l'époque d'or de l'islam mbokk yi nu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala bundu xatal bi ñu bundu xatal jullit ñi ci àdduna bii yàlla def at mii nekk atum teggeeku bundu xatan nekk at moo xam ni ci lañuy delluwaat ci ndam li nga xam ni loo moom la lislaam amoon doole ji nga xam ni moom la amoon ba ay noonam ragal ka wekk loola yàlla mën na ko yomb na ko yàlla nanu ko defal ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international ànd ci ak Dakar FM àndoon ak sunu mbokk Seyni Diop Mouhammad Chérif Diop di ñaan yàlla subhaanahu wa ci at mu bees mi yal na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yal na yàlla doon suñu ndimbal yal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gëna jafe ci jamono yi nuy dund yal na nu ko yàlla yombal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 wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi al-akwan mustafa ar-rahman anta fi al-akwan mustafa ar-rahman le message du Coran hadiyan lillah ya rasul